salaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu deen ziar di kontaan ñëwaat ak yéen ci seen série de vidéo comment gagner de l'argent sur YouTube nan ngeen def bay ngeen xaar si fii ci seen canal Galsen Tube man ma leen koy defal nag maa ngi tudd Pape Mor euh, tey nag comme ni ñu leen ko promettre woon <clears throat> dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy paramétrage parce que ñu bëri kat dañoo seetlu canal YouTube yi boo ko ubbee bëgg cee liggéey def ay vidéo bëgg ci di xaalis li nga xam mooy paramétrage yi. c'est obligatoire mënul ñàkk parce que bu fekkee da nga ubbi sa canal jël say vidéo di dugal bien sûr di nga mën a téléverser say vidéo di ko partager ñu ñu ko mën seetaan mais nag su fekkee da nga bëgg nag euh, def ci euh, au-delà de ça avancer ci noo xamante ni euh, ci wàllu monetisation bi dafay nekk loo xam dafay crédible il faut paramétrage yi nga régle ko selon YouTube ni mu ko bëggee pour mu mën a xam exactement sa contenu lan la. ci ban ci lan lay wax ci yan thème lay traité pour suñuy def ay recherche biir YouTube mu mën di indi say continuer di ko présenter nit parce que boo cliquer benn vidéo def recherche ci YouTube nga am loo soxla cliquer ko ci ci biir moteur de recherche ci YouTube daf ay vidéo yu bëri yu ramaloo en général léegi vidéo bi nga xam ne moo jiitu toujours dafa nekk vidéo xam ne dañ ko paramétrer ba pare optimiser ko bu la gën a baax paramétrage gën la baax optimisation moom moo lay jiitu selon noonu la ñuy toppante. léegi nag moo tax boo ko négliger toujours bu ñuy defay ay recherche YouTube boo moytu say vidéo ci suuf lay nekk te gars yi bu ñu gisee vidéo yi nekk ci kaw yooyu la ñu ëpp muy dix euh, première vidéo yi soo bëggee nag nekk ci euh, dix première vidéo yi bu ñuy def recherche info paramétrage yi nga def ko normalement lépp lu ñu war a remplir fu ñu war a cocher yépp nga def ko normalement description yi tag yi yépp nga war def ko normal loolu nag mooy vidéo tey bi loolu ko waral ñuy ñëw ci wan leen nag ngeen di paramétrer euh, kana seen canal YouTube Euh, nan ngeen koy optimiser pour moteur de recherche yi après décision mais tey moom vidéo bi exclusivement ci paramétrage la ba nga xamante ne bu ngeen fa jógee loolu moom da ngeen di da ngeen koy da koy fàtte nekk ci la leen bu ñu defee paramétrage bi dinañ ko ñëw ci ordinateur bi toujours def ko wan nañ ko ci ordinateur mais après dinañ def beneen vidéo boo xamante ni dinañ leen woon ouverture compte comme bi bii passé vidéo bi passé ouverture compte Gmail la woon ak YouTube ak chaîne YouTube dinañ leen wan nan ngeen koy defee ci mobile comme ñu ëpp léegi ci mobile lañ nekk mobile la ñuy connecté woo ci la ñuy def lépp presque boo xoolee téléphone mobile léegi presque ordinateur yu ndaw la kon lu bëri léegi looy def léegi soo ko adapté mobile presque dafay des parce que ordinateur ñu bëri utiliser duñ ko am donte am na programme yu bëri yoo xam ni soo ci bëggee liggéey efficacement il faut nga yor ordinateur par exemple soo bëggee nekk youtubeur professionnel bëgg di liggéey ci youtube am ay ay euh, canal youtube bëgg si di gagné xaalis boo da nga ciy mën a dund dignement il faut nga utiliser ordinateur parce que dafa am logiciel montage yoo xamante ni version ordinateur yi ak version mobile bokkuñu mi ngi mel ni YouTube version mobile bi ak version ordinateur bokkul soo telee téléchargé application YouTube option yu bëri yooyu am ci ordinateur mënoo ko am ci application bi sinon il faut nga dem Google nga def ta téléf nga tàppe fa YouTube après nga dem coché ci paramètre nga coché euh, vue ordinateur su ko defee dina la indil comme ni muy génn si ordinateur mais inconvénient bi mooy euh, vidéo yi dañuy ndaw bind yi dañuy sew sa qui fait loolu du ko du du du neex a liggéey ko am moo tax mais daal li ma leen di conseiller mooy su fekkee da ngeen si bëgg euh, jël ko au sérieux ci liggéey dëggantaan ut leen ordinateur teg à côté yi nga xam ne ordinateur moo koy def ngeen ko ci def li nga xam nag mën ngeen ko def seen téléphone ngeen ko def seen téléphone mais fekkee amoo ordinateur te bëggoo utiliser ordinateur ba léegi tamit mën nga utiliser sa téléphone moo tax leen wan nañ ouverture compte nan ngeen koy defee si téléphone dinañ leen wan euh, application YouTube bi lan ngeen si mun def <clears throat> dinañ leen wan ab beneen application bu YouTube studio boobu tam da nga koy télécharge da nga koy installé sa téléphone parce que lu bëri lu lu application euh, amul boo demee ci YouTube studio da koy fekk am na ko moo it bu fekkee da nga bëgg a def ay montage ci sa téléphone il faut nga am YouTube studio dina tam ay yeneen logiciel montage yoo xamante ni. si sa téléphone mën nga utiliser sa téléphone filmer monter euh, de muy téléversé ci YouTube yépp nga def ko te doo jóge sa téléphone loolu yëpp dina leen ko wan en tout cas lu ñu leen wan ci ordinateur yi après dañ leen wan version pour téléphone nag ngeen koy defee incha allah moo tax vidéo bi vidéo paramétrage la bu ñu ci jógee dañ leen wan ouverture compte ci téléphone ak paramétrage ci téléphone kon lu ñu def loolu dul dem directement ci ordinateur bi Euh, pour wan leen paramétrage chaîne YouTube bi ñu ubboon keroog si la ñuy demaat ba léegi commencé ndoo ko ak yéen mu démarrer zéro wan leen paramétrage na ni ñu koy defee après étape par bi si topp yëpp dina ba bu ngeen fi jógee moom programme bu jeexee lépp lu ngeen war xam ci YouTube ak nan la ñuy gagné xaalis ci YouTube ak internet di ngeen ko xam comme ni leen ko bu jàllee après ñu dem ci Facebook tam parce que léegi am na système boo mu dugal say vidéo di di si gagné xaalis ci publicité léegi lu bees la mais mais am na léegi ah, kon nag euh, ñu dem tout droit ci ordinateur bi. Adja. salaamaaleykum gars yi comme ni leen leen ko waxee rek ñu ngi leen di nuyu di leen si ziarat waaw tey moom vidéo bi comme ni ñu leen ko xee ci paramétrage tey lay ñëw uniquement nan ngeen di paramétrer seen canal parce que comme ni ma leen ko waxee téléverser vidéo bi compte canal téléverser vidéo yomb na waa ne sans paramétrage bu baax say vidéo toujours vues duñ bëri du demee noonu te boo bëggee nag YouTube bi dëgg nga nekk ci di ci liggéey ci am xaalis. il faut paramétrage yi nga def ko selon YouTube ni nga ko bëggee su YouTube dafa am nu mu bëggee affaire tëddee ko pour muy mën a xam sa contenu information yépp pour di ko mën a jox internet yi ko soxla léegi nag li ngay njëkk def mooy boo ñëwee nga connecté wu ci compte yi ci canal bi nga xam ne moom ko bi woon mu ngi nii canal bi ñu boon mu ngi nii yaa ngi gis Pape Lo Pape 123 arobase gmail point boo connecté woo automatiquement euh, boo cliqué lii la bu fekkee ci ordinateur la comme ni ñu leen ko wax bi jeexee ci beneen vidéo bi si topp Euh, fii nag peut-être dina ñoo xam ne li mu ñuul mën na leen jaaxal maayul mais loolu lu yomb la fii rek nga ñëw thème foncé nga def nii fii ñu nga ñu su bëri version bi la ñuy gis ni nga day weex nii euh, yuut bi day weex mais weex bi dafa baaxul ci ay bët quoi man moo tax dama koy changer toujours da ngay ñëw fii nga wàcc ba fii nga lire thème foncé activer léegi da nga koy activé nga cliquer fii léegi nga activé ko gis nga mu ñuul parce que moo gën a baax ci bët dama leen recommander yéen ñëpp ngeen def ko parce que moo gën su fekkee da ngay xool ordinateur wala téléphone ba ni ngay surtout site bu am option bii rek mun nga ko def parce que moo gën ci say bët quoi. léegi ñu jublu nag ci affaire bi dangay ñëw cliquer fii ci logo bi li ubbeeku nga am ma chaîne abonnement payant version beta version studio beta euh, changer de compte fii bu dee compte yu bëri nga am fii ngay cliquer par exemple su doon man su cliquer fii nga si compte yi maam day ñu pour ñu yem foofu thème foncé moom wax naa leen ko c'est langue bi ban langue bëgg YouTube di la ko indilee anglais français espagnol tout nga ngay cliquer léegi fii moo ñu intéressé paramètres bu cliquer paramètres fii la indi choisis euh, non choisissez de est ce que vous voyez sur YouTube maanaam yow nan nga bëgg ñu lay gisee ci YouTube ak lan nga bëgg gis ci YouTube yëpp fii nga koy paramétrer quoi fii nii mooy ñu nga sa boo ko bëggee changer fii ngay cliquer boo cliquer fii da lay yóbbu modifier sur Google Plus la lay yóbbu nga changer tour bi def tour bu la neex wala bu dee ab euh, boutique la nga def sa tour boutique bu dee sa turu atelier nga def sa turu bu dee benn surnom nga def surnom yaa xam la neex rek. fii tamit euh, afficher les fonctionnalités supplémentaires fii tam après danañ fi ñëw bu ñu ginnaaw bu ñu wàccee fi ba mu jeex mais comme ñi ngi fi compte li fi nekk nii lañ leen di wan euh, mais après bu ñuy demee fi ba mu jeex fii la ñuy ñëw dugg ci paramètres yi nekk si biir léegi fii ngay ñëw def euh, notification boo ñëwee notification gis nga da ngay sélectionner fii mooy tax Google di la envoyer notification yi nga xam ne yëpp yu concerné YouTube soo sélectionné fii nag. notification yi mu jàpp ne mënut ñàkk rek la lay envoyé moo tax nga koy bàyyi fii par défaut fii la nekk nga wàcce fii ndax da nga je souhaite recevoir des actualités par email de la part YouTube à propos de information générale annonce mention actualité ñaar yëpp nga bàyyi nii parce que loolu moo gën gis nga nga wàcc nga ne autre vidéo recommandée activité relative à mes vidéos mention activité relative commentaire réponse yëpp nga bàyyi nii parce que tamit par défaut nii mu ñëwee noonu la noonu la gëne lecture ak performance Contrôlez votre expérience en matière de visionnage de vidéos. Euh, afficher les annotations et les notifications dans les vidéos waaw nga bàyyi euh, toujours afficher les sous-titres waaw su fekkee disponible afficher tous titres automatique par consa vocal si disponible tamit nga def ba léegi mën koo def nga def enregistré voilà <coughs> parce que boo changé toujours modification yi toujours da ngay wër bouton enregistré bi soit mu nekk fii ci suuf des fois mu nekk ci angle bi fii ci kaw nga def enregistré parce que loolu li nga li nga changé du du ko jël du ko en compte après nga ñëw confidentialité maanaam li nga bëgg ñu xam ko ak li nga bëgg nëbb léegi ndax mu ne la ndax euh, gérer vos partages sur YouTube sélectionnez les personnes qui peuvent voir les vidéos que vous avez aimées vos playlists enregistrées vos abonnements maanaam sa li activités yi ngay def ci internet bi ci YouTube bi it lan nga si bëgg nit ñi gis ko ñi nga xam ne dañoo nekk say say amoon ci sa canal maanaam euh, <clears throat> garder privé mes vidéos j'aime vidéo yi nga aimé euh, man dama koy garder privé parce que moo gën garder privé mes playlists enregistrées playlist yam dama leen enregistré non non dama ko garder privé public laa koy def dina privé bi garder privé mes abonnements abonnement yi waa dama koy bàyyi noonu parce que loolu moo moo ma gënal après nga cliquer fii enregistré mu tenir ko en compte voilà gis nga boobu modification ont été enregistré nga wàcc <coughs> toujours fi nga yem gis nga day foncé yi nga yi nga passé dañuy clair yi nga ay dañuy clair comme da ngay wàcc na nga xam ne bii nga nekk bi ma stop application associée fii moom dañ leen ko wan ni mais concerne ñu parce que am ñi nga xam dañoo nekk ay sites yoo xam ni dañ fa abonné pour di def ay affaire di ko def ci YouTube bi ay gaming ak yi demee noonu ñoom la concerné ko ay partenaire la ñoom xam dañoo associé ak euh, YouTube di def business mais comme ñun yi compte concerné wu ñu ubbiwuñ fa compte te je vous tam yooyu ngeen bañ ko utiliser parce que euh, YouTube li gën ci internet mooy looy defar nga defaral ko sa bopp directement def ko ci YouTube bañ a jaar ci ay networker que network yi en général dañ lay utiliser yow comme ñëpp ay parce que ay network lañ dañ lay utiliser pour euh, mën a di utiliser sa contenu di ci jaarale publicité di la mosal di ci mos loolu la nga def directement say publicité ci YouTube ak ci say yeneen plateforme ay blog wala nga def sa ay formation jaay ci internet bi wala nga wane sa ay produit xam ni directement la yaay gérer lépp daal moo gën a man option boobu laa préféré que loolu moo gën a daal sama xel laa di jaar ci yeneen ay site ak ay nu mu ay compte associé yi boo xam yooyu après nga ñëw ci regarder <clears throat> sur un téléviseur parce que mooy bu dee rek sa YouTube da nga ko bëgg a connecté ak sa télé pour di ci seetaan loolu euh, pour l'instant ça intéressé wuñu facturation bu dee da ngay jënd ay film ci YouTube di seetaan ak yu demee noonu fii ngay dugal say information kon xam ne boo gisee benn film automatiquement boo cliqué rek parce YouTube da am film yoo xam tam dañ koy jaay ba nga koy seetaan da ngay ay mille et quelques mille mais loolu dama concerné wu ci paramètre avancé bi moo ñu gën a intéressé gis nga paramètre avancé bi si URL personnalisé après dinañ si ñëw si si si si si deuxième vidéo paramétrage bi connecté avec l' adresse euh, ñu nga sa annexe information compte bi compte bu dinañ ko déplacé associé ko ak beneen compte flux d'activité <coughs> d'actualité euh, va bientôt être désactivé lii moom Google information bu mu yëgal ci kanam tuuti yi ngay def yëpp du mënati dugg automatique ci internet bi waaw Google da koy dindi waaw mais nag euh, dindeegu ko pour l'instant quoi mën ngaa associer ba léegi publier dans moo fil d'activité quand j'ajoute une vidéo a une playlist publique waaw bëgg naa bu may dégale playlist automatiquement samay membre xam ko su ma aimé benn vidéo soxlawu ma ko xam su ma enregistré benn playlist soxla naa ko ko xam su ma abonné ci benn chaîne soxlawu ma ko ko xam yooyu soxlawu ma ko waaw nga bàyyi noonu gis nga automatique la léegi bu loolu lépp jàllee yépp xool nañ ko def nañ ko revue léegi nga ñëwaat fii ñu déparé woon mooy compte boo cliquer compte comme ni ma la ko fii boo bëggee changé sa tur bi la da ngay ñëw fii ci votre compte fii afficher les fonctionnalités supplémentaires maam yëpp yeneen par soo bëggee dolli yeneen xeetu paramètre fii ngay ñëw gis nga léegi boo ñëwee fii lu mu la indil essayer euh, studio version bêta version studio bêta maanaam système bu bees bu YouTube def la pour nga koy tester bañ a yooyu léegi fii li ci ëpp importance li ngay gis mooy gis nga compte bi c'est validé parce que dama dugal numéro téléphone bañ validé ko fii mu ngi lay état du compte en matière de droit d'auteur maanaam fii ndax jalgati woo ci dugal ay vidéo jàmbur wala ay audio jàmbur wala image jàmbur kooku ñëw boole la YouTube YouTube def na verte na mooy état bi mi ngi en compte bi mi ngi en règle canal bi mi ngi en règle soo amee ñu lay dénoncé muy jalgati benn yoon day ñëw fii nga demaat ba yàgg jalgati waat def du vidéo jàmbur kooku tam ñëw ne dugal na sama vidéo Google xool ni vraiment kooku moom vidéo ba mu supprimer ko wala mu désactiver monétisation bi ci yow yóbbu ko ci kooku day ñëw fii soo continué ba mu ñëw fii mu rouge nag dañuy bloqué sa sa compte bi dootoo mën a perte say mën nañ nekk fii de mais dootoo mën a bokk ci at AdSense pour fayee ko xaalis dañ koy bloqué voilà fii ci commune état di compte en matière de règlement de la communauté te même chose boo ñëwee fi nag mooy règle communauté bi mooy bu fekkee da nga def benn vidéo boo xam ni da nga ci wax ay wax yu ñaaw nga saaga ci wala nga xaste ci wala nga def ci loo xam ni day sulli violence wala affaire nit ñi suñ ko seetaanee dañu si suuf bi am nañ option wu dem kalaame euh, YouTube sa vidéo bi nag ñi lay clamé bu ñuy bëri day yokk tamit fi vert na day orange zone après mu rouge bu rouge itam YouTube da lay bloqué même chose moo tax ñaar yi il faut ngeen fexe respecté ko bañ a dugal ay vidéo jàmbur bañ a dugal loo xam tam dafay tax ñuy communauté bi ni ne dangay dugal lu bon maam am ay saaga ak ay affaire inde affaire xeet ak yooyu wala yooyu baaxul léegi après nga ñëw fii fii gis nga yii nii pour ñu activer ko après dans la beneen vidéo boo xam ni benn par benn yépp ñu activer ko ensemble waaw muy carré yi ngeen di gis vidéo mise en ligne activé wu na moom automatiquement monétisation naa la woon nuñ ko activité ak euh, si deuxième vidéo par parce que paramètre bi foo mu nekk deux vidéo monétisation fii nga koy activé naa leen woon lan la ngay activé monétisation moom mooy mën a tax soo amee 1000 abonnés ak 4000 heures de nga commencé gagné xaalis si YouTube directement via les publicités mais mën nga commencé gagné avant loolu sax parce que naa leen dinañ leen ko expliquer après diffusion en direct soo bëggee diffuser en live ci ci ci YouTube bi il faut tam fii nga nga activer ko intégrer des diffusions en direct soo ko bëggee dugal tam ci sa biir programmation diffusion en direct la ba léegi beneen mais baneen façon la moom tam fii soo bëggee dugal fii yu ëpp quinze minutes il faut nga activer fii tamit. Uh, vidéo privée et non répertoriée gis nga activé na automatique ñaari vert activé wu na miniature personnalisée moom activé wul dinañ ko activé annotation externe activé wul dinañ ko activé uh, super chat moom il faut nga am 1000 abonnés url personnalisé moom tam dañ ko activé appel relatif au système content indi dañ ko activé subscription au sein moom il faut nga am 1000 abonnés pour mën ko activé tamit moom moo tax duñ ko activé mënaguñ ko activé léegi léegi boo jógee foofu nga ñëw kon ñoo ngi communauté ñoo ngi seen état fonctionnalité moo nekk ni léegi ñoo paramètre par défaut des vidéos mises en ligne maanaam li nga xam ne moom ngay dugal vidéo bu ñëwati rek daf ciy nekk fii ngay ñëw sa vidéo da nga bëgg ñu public wala bëgg ñu privé wala non répertorié public la moo gën fii ngay ñëw su dee vidéo bi da nga ko bëgg a mais bëggu ko kenn gis ko da ngay ñëw def privé fi sa vidéo bi kenn du ko gis mais boo ko defee fii ci option bi vidéo yëpp lay def privé yi ngay télécharger après moo tax da dem ci vidéo bi ci boppam après nga def ko privé loolu dañ leen te bu ñu ci excès dañ leen ko won bu ñu commencé télé verse vidéo yi dañ leen won nañ leen ko defee privé mais fii public ngay def parce que daa concerné yëpp boo bëggee personnal personnalisé nag ba après bu nekk nga dem ci catégorie fii kenn ku ne yaay xool ci lan nga yëngatu waaw bu dee actualité animaux moto comme li ñu leen ko waxoon ka rek li ngay lii fii daal bu dee ci wàllum tukkeek ay xew-xew ngay yëngatu bii ngay cliquer bi ngay sélectionné mooy nekk sa catégorie bu dee ci vie pratique et style maanaam dundin loo xam ne dafa jëm ci luy teel luy luy baaxal dundu aad doomu aadama yi loo xam ne nan war a comporter nu ñu war a def style de fii ngay ñëw bu dee tàggat yaram sport fii ngay ñëw mu dee wàllum science wàllum technologie ngay wax ci wàllum ordinateur yi téléphone yi technologie bi ñuy jaay high tech yépp si fii ngay ñëw bu wàllu people ak block da ngay joxe information ci benn sujet fii ngay ñëw organisation bi non lucratif bu dee wàllum ONG ngay yëngu ak association yi bi ngay cliquer bu dee ci wàllum musique fii ngay cliquer bu dee ci wàllum jeu vidéo yi fii ngay cliquer bu dee ci wàllum comédie comme ñoom Kouthia Sa Ndiogou xeet googu ay ñoom Abba fi ngay cliquer bu dee ci film ak euh, dessin anime yi fii ngay cliquer muy film yi ak animation bu dee ci wàllum njàng la nga par exemple nga nekk professeur école di def ay vidéo ci ay expliquer ay si ay sujet euh, di dimbali élèves yi di ko def ci YouTube bi fii yow fii ngay fii moom la conseil d'éducation bu dee ci wàllum divertissement maanaam loo xam ne ay xàppi la nit ñi dem ci ay ah divertissement daal maanaam lépp loo xam ne pour féexal bakkan la ci aju ci sujet boobu daal la aju fii nga koy euh, fii ngay cliquer bu dee wàllu euh, dafa jëm ci wàllu euh, sport mécanique wala affaire auto affaire transport yëpp fii ngay cliquer ci jëm ci wàllum bàyyi may mala yeeg yooyu animaux yi fii ngay cliquer actualité et politique loo xam ne ci xew-xewu jamono la ak lu aju ci wàllum politique yi yooyu yëpp fii ngay cliquer ak euh, euh, revue de presse yi ak xeet yooyu daal fii ngay euh, cliquer politique yi comme ñoom Pape Alé Niang par exemple fi ngay bu boobaa fi ngay cliquer mais ñun nag ci suñu cas comme bi dañuy jàng dañuy def rek presque am vie style vie pratique style voilà moom la ñuy def en attendant léegi nga ñëw ci licence ban licence nga bëgg licence YouTube standard moom ak licence Creative Commons attribute tribution euh, ñaari licence seen différence mooy licence YouTube standard moom nga war a def mooy koo xam ne yow da ngay def licence YouTube say vidéo yaa ko moom say droit joxe ko ko bëgg da tàgg soo ko dugal wala mu fay la soo ko soo ko soo ko copier say vidéo soo defee Creative Commons nag fii mooy yow vidéo bi yi may dugal ku ko bëgg rek mën na koo jël man dugal naa ko waaye koo soxla tam mun nga kaa jël am loo ci dagg dugal ci sa beneen vidéo am loo ci monté am loo ci yokk am loo ci commentaire waaw mu bàyyi naa ko nii daal man daa am problème droit d'auteur yi moom garaawul bu boobaa fii ngay def bu fekkee nag ñun kaa bi ñu concerné licence YouTube standard la ñuy def parce que bëgguñu kenn copier suñuy vidéo titre fii da ngay bàyyi parce que comme say vidéo bokkuñu titre soo defee benn titre titre bi ngay moo tax jaru si def nga wax fii da ngay bind canal bi ci lan la jëm lan la aju par exemple tey euh, bu dee kanaal bi dafay yëngu ci par exemple man damay def euh, damay digle par exemple koo xam ni da bëgg par exemple euh, da nga am yaram bëgg sew léegi te bëgg koo jaaree ci sport léegi ma décrire man maa ngi tudd diw kanaal bi maa ngi ko créer pour ñi nga xamante ni dañoo dama dañoo dañoo xaw am yaram bëgg a jeex te bëgguñu koo jaare ci ay jël ay doom ak ay ay produits chimiques yu ñu xamul ak ay comprimés mais dañoo bëgg di def sport léegi man maa ngi wane bis mu ne wala chaque semaine dinaa def benn vidéo boo xam ne wane sport yoo xam ne boo koy def bu yàggee da nekk en forme sa yaram dina wàññeeku. vidéo yooyu nag euh, maa ngi koy enregistré bërëb sàngam maa ngi koy defee fii nii laa koy defee dinaa ci ànd ak diw wax daal lépp li nga xam daal yow xalaat nga ni. bu ko nit ki liiree dina comprendre sa canal bi lan moo tax mu jóg nga bind ko fii mais bu fekkee benn phrase nga bind rek man maa ngi tudd diw maa ngi yëngatu ci wàllum tàggat yaram pour ñi nga xam dañoo bëgg euh, jaar ci sport pour wàññi seen yaram nga def point baax na bu subaa boo amaatee beneen idée boo ñëwee dolli toute façon mi ngi fi jógee foofu quoi yow soxlawul ngay bind lépp d'un trait waaw ngay bind fii li nga li nga soxla rek su fekkee tam euh, xamoo dara loo fi bind mën ko ko bàyyi ni mais nga bind fi moo gën après su fekkee da am site internet nga def lien bi tamit bu fekkee am nga page Facebook nga copier dem ci Facebook nga copier lien bi comme bii nii nga copier ko nii copier boo bindee ba pare ci suuf gi nga ñëw nga def fi coller lien bi nga coller ko fii bu ko defee ku liir yow li ngay def liir liir ba pare gis lien bi day cliquer mën a dem ci sa internet pour xam exactement lan ngay def voilà euh, Facebook te boo ko amee page Facebook nga def fii boo amee Instagram yooyu yëpp réseaux sociaux yëpp. réseaux sociaux boo boo réseau social boo xamante ni yow am nga am nga ko rek nga jël lien bi nga copier ko teg ko fii pour ku lire vidéo bi su ko intéressé mu dem xool la foofu fii nag tag tag tag yi ngay def waa tag yi mooy euh, tekki par exemple tey <clears throat> gis nga xoolal vidéo ay vidéo yu ma dugal tag yi ñëw yi génn nii léegi fii mooy mots clés yi nga xam ni moom mooy tax euh, ñu mën la suivre par exemple su fekkee ne damay yëngu ci sport bëgg bëgg nit nit ñi nga xam dañoo xaw am yaram mu leen wax nan la ñuy def ba mën a wàññi seen yaram jaare ko ci sport damay def fii léegi sport damay def damay def sport sport virgule def perte de poids exemple comme nii nga def boo def nag da def virgule boobu enregistré nga def est lépp loo xam dafa ji xeetoo ci wàllum perte poids ngay dugal di dugal di dugal ba mu mat ay dix yooyu baax na parce que dafa dafa limité tamit am na nombre wax boo ko dugalee day bloqué mais boo dugalee bu bloqué toute façon boo ñëwee fi boo defee enregistré day ruus du dem nga wàññiwaat boo defee enregistré mu nga dem voilà parce que <coughs> dañ ko limité léegi tag yi nag boo boo boo boo paree ci tag yi comme ni ma la xam ni rek sport perte de pois régime régime sans régime sans médicament virgule régime perte de poids comme noonu rek yu mel noonu mooy yoo xam ne laal na ci wàllum régime jaaru ko ci sport yëpp lu ma ci xalaat rek nga bind ko su fekkee tam amoo ci idée après si deuxième vidéo paramétrage bi nga xam ni moom la leen waxoon dinañ ñëw ci wàllum euh, état fonctionnalité bi dinaa leen woon benn programme boo xam ne danga koy installé ci ordinateur daf lay dimbali léegi yow <clears throat> sujet bi nga xam ne moom ngay traité su dee mënoo ci am ay mots clés yi nga war nga dugal da ngay dem ci ku def vidéo bu mel noonu nga xool mots clés yan façon mots clés la choisir nga copier mots clés yooyu nga dugal ko fii dinaa nan lañ koy defee waaw da ngay dem vidéo toujours vidéo bi nga xam ne moo nekk numéro un ci sujet boobu nga xam ne ku tàppe YouTube rek ci sujet ci sujet yow bi ngay def vidéo bi ci nekk numéro un nga xool yan mots clés la def pour mën a am ranking bu baax dinaa la woon benn euh, kii benn euh, extension Google Chrome boo xam ne moo nekk nii boo xoolee fii di nga ko gis boo xoolee muy tub badi wala mu nekk euh, IQ ñoom ñaar ñoom ñaar yëpp ñoo yem mais loolu lay njëriñ mais après den si deuxième vidéo bi loolu dinañ si ñëw léegi bu loolu jàllee nga def commentaire et avis autoriser les commentaires nga def pour tout le monde ku nekk mën na commenter samay vidéo afficher les avis laissés sur cette vidéo tamit nga bàyyi noonu nga ko ñaar yi nga bàyyi nañ ko coché langue de la vidéo vidéo bi ci ban làkk ngoo ko def su fekkee vidéo bi ci français nga ko def nga def français su fekkee bu la neex tam nga def làkk bi ma ko def daal bugg xawma ko wala bugguma ko wax nga def non applicable mais comme làkk bi yow ci olof nga ko def fii ngay ñëw recherce par recherche parmi 192 autres langues nga def fii nga tàppe wolof gis nga automatiquement génn na nga def vidéo bi ci wolof laa ko def waa moo tax kuy recherche te mu xam ni sénégalais nga wala ci Sénégal ngay recherche wolof day susceptible pour mu indil ko vidéo bi contribution te xam nga vidéo boo def ci wolof bu ko yóbbulee américain amalu ko njëriñ bu ko yóbbee français amul ci amalu ko njëriñ voilà contribution de la communauté autoriser les internautes à contribuer à la tradition des titres description et sous-titres ndax da ngay autoriser yi ñu mën a sa sous-titres yeeg euh, ak euh, nu mu tuddati traduction vidéo bi ñu mën ci participer non man moom du ma ko autoriser nii lay bàyyi certificat de sous-titre tamit nga bàyyi nii statique relative à la vidéo waa muy affiché nga def nii nga bàyyi nga coche ko bàyyi ko noonu voilà langue bi ngay changé jeex na fii langue bi kese lañ fi changé les idées na après nga ñëw fii nga def enregistré parce que am na changement fii la nekk ci sànq ba ñuy def enregistré ji nga fii la nekkoon gis nga fam page yoo xam ne fii lañ la koy defal ci ruq bi bu dee bind yi dafa xaw a bëri ñu duñ koy dindi def ko fee bu dee bind yi dafa tuuti ñu defal la ko fee ci suuf noonu lay doxee quoi léegi ñu ñëw branding branding fii water make the branding maanaam un élément de branding de chaîne à superposer à vos vidéos maanaam branding mooy benn logo la boo xam da nga koy télécharger euh, sa logo vid vidéo boo xamante ni am nga ko rek vidéo boo xam ne am nga ko rek moom day nekk ci suuf vidéo bi ci angle bi parce que loolu lay jëriñ quoi bu ko defee ñu xam solo sa logiciel mooy comme bi ngay def fii après bi ñuy def fii moom mu ngay def fii léegi fekkee am nañ ko mën nañ ko dem jëli comme ça ngeen xool te fii ngay ñëw li gën mooy mu nekk euh, image boo xam ne benn couleur lay nekk image bi nekk ci mu carré bu nekkee trans wala mu nekk transparent wala mu nekk transparent comme nii moo gën moo pour obtenir de mais résultat utiliser la transparence une couleur et une couleur maanaam nga utiliser vidéo euh, image boo xam ni li ko wër day transparent doom dara ay mel ver léegi te ittee image bi nekk benn couleur bu ko defee nag dafay mën a fes loolu lañ ci jublu moo tax format de fichier recommandé PNG wala GIF taille fichier benn benn méga war ko passé ko passé du dugg léegi ñu dem ci ordinateur bi léegi xool ban lañ fi war a mën jël léegi mu xool ñu jël bi logo bii def ko logo chaîne bi wala sax Euh, waa nañ jël bu bi bi wax baax na léegi ma ma cliquer fii léegi enregistré gis nga PNG la xam nga gis nga gis nga léegi nga def enregistré jeex na gis nga vidéo bu mun ti dugg ñu ko logo bi day feeñ ci suuf vidéo boo munti seetaan rek exemple xaaral moo ubbi beneen ma dem seen Tube ñëw ci sama waa gaal seen ngi nii sabone léegi ñëw si sama vidéo voilà mu ngi nii gis nga man lii laa dugal s'abonner bi laa def comme image gis nga moo ngi nii vidéo bi nga buy daw yaa gis ni voilà la ciy nekk voilà léegi branding bi loolu la jëriñ lii da ci nekk après mun nga ko def nag image bu la neex léegi nga ñëw fii nga def début à définir maanaam kañ nga bëgg lii affiché soo la neexee nga def cinq secondes yu njëkk yi lay affiché léegi wala nga def fin vidéo bi gis nga su vidéo bi di waa jeex des tuuti lu bële li kase lay affiché mais man dama préféré def ko muy intégralité de la vidéo vidéo buy daw A ba Z affiché mu ngi nii boo defee ku ko bëgg a cliquer mën a cliquer dama amoon nga def après mettre à jour. gis nga enregistré wu na léegi nga wàccaat fii ji ba léegi ci paramètre nga ñëw option avancé boo ñëw option avancé ba léegi yaa ngi amaat fii mën nga modifier sa tur mën nga modifie image bi fii lañ ñëw modifier image bi modifier da lay yóbbule Google Plus léegi Google Plus gis nga xoola mi ngi ne indi na la Google Plus Google Plus baa ngi nii gis nga léegi nga ñëw fii boo tegee digg bi rek si nga boo dindee day dem boo tegee digg bi am na lu mel ni appareil photo buy feeñ nga cliqué ko li nga mu la fii importer photo nga cliquer ko gis nga indi nañu fii même sama même photo bi laay jël ma cliquer ko ñëw gis nga léegi photo bi mun nga ko def rotation tourner ko gauche droite bu la neexee def ok mu daal di gis nga photo bi dugg na saa su ma ko su ma bëggoon dugal beneen wala ma gis ni photo bi daa am lu si lu ma juum wala dafa dënk wala dara mën naa defaat fii changé ko n'est-ce pas léegi fii après dañ fi ñëw wan leen photo bi itam ni koy changé parce que par défaut la fi Google def benn mais dinañ ko personnaliser bu ñu defaree bi nga xam ne pour fële la ba noppi léegi nga tëj féete na ko côté léegi pays bi wan pays nga nekk nga sélectionné ko moo clé yi nga ñëwaat. comme li ñu leen ko waxee mais comme la ñu ko waxoon sànq vidéo bi deuxième vidéo bi ah, suñ ci demee ba ngeen euh, copier mot clé yi ngeen soxla ba pare bi dañ ko bëgg a def benn xam ngay ñëw fee fe nga fi ñu leen njëkkoon noonu fa ngay def mot clé nga kik nga collé ko fa benn yoon ñëwaat fi collé ko fi benn yoon loolu féete côté moo tax après dañ leen won mot clé yi selon thématique bi nga xam si nga yëngatu na nga koy choisir nga def fii publicité ndax da nga bëgg désactiver après publicité yi nga xam day ñëw non non bëgguma désactiver associé compte AdWords bu fekkee da ngay def euh, danga bëgg di def utiliser YouTube Google di ko fay pour mu lay defal sa promotion video fii ngay ubbi compte da ngay associé sa compte AdWords ngay ubbi après yow associé ko fi mais loolu pour l'instant concerne wu ñu mais après bu ñu ci eggee dinañ leen won loolu lan la mais xam naa ci kanam parce que pour l'instant soxlawu leen ko. recommandation de la chaîne autoriser l'affichage de ma dans les recommandations d'autres chaînes waaw bëgg naa ko. ne pas autoriser l'avènement a dans recommencer d'autres chaîne nga bàyyi ni bii mu si kaw moo gën parce nga bëgg sa chaîne su kenn seetaanee vidéo say vidéo di ñëw à côté pour nit ñi mën ko cliquer kon da ngay bàyyi nii nombre d'abonnés afficher le nombre d'abonnés à ma chaîne maanaam ndax nombre person yi abonné ci danga bëgg ñu ñuy ku ku dugg ci chaîne rek gis ko wala da ko bëgg a nëbb par exemple waaw ñu demaat ci YouTube moon leen ko léegi gis nga ñu ngi ci ci ci YouTube bi léegi par exemple boo cliquer fii benn vidéo def ko pause léegi nga boo ñëwee fii ci suuf ci nga turu vidéo bi comme fi ñu nekk nii de paramètre euh, image bi nga xam ne mooy xaar ñu nga jëw fii rafraîchir page bi pour su ñu logo bi ñu dugal sànq mën a feeñ waaw voilà mi ngi nii logo bi ñu dugal nii boo ñëw ci benn canal moo nekk nii foo mun di dugg mooy mooy feeñ fii après ci suuf gis nga canal bii nii moom mooy nekk nii mooy feeñ fii gis nga léegi bi mu demandé ñu wàccaat fii bi mu ne ndax danga bëgg nombre d'abonnés afficher la nombre d'abonnés à ma chaîne ne pas afficher le nombre d'abonnés am maanaam da ngay abonné wala da ngay afficher wala afficher woo ñaata personne ñoo abonné ci sa canal gis nga boo ñëwee fii kii gis nga da ko nëbb fii yaa ngi gis defal na la photo bi defal na la trou chaîne bi defal na la ajouté le 26 février 2019 la ñu ubbi canal bi mais gis nga defu la fi ñaata abonné moo fi am par contre am na kii yooyu dem xaaral ma xool beneen beneen vidéo non ba léegi deful abonné xaaral la def TFM <clears throat> moom je crois def nañ seen nombre abone waaw mi ngi nii sax moo feeñ ñëwee ci seen vidéo voilà gis nga TFM mi ngi nii seen kanaal mi ngi nii seen logo mi ngi nii am na 749000 abonnés 749000 soo gisee K ay milliers la su doon million la M lañ fi def mais boo gisee K rek ay milliers la. voilà ci YouTube noonu la ñuy bindee affaire yi quoi ñoom léegi voilà ji nga fii onze mille onze mille la su fekkoon dafa passé foofu dem ay million m la ñuy bind gis nga fii amul bu fi dem million mais sinon bu fi amul après mu feeñ fi voilà voilà bref fii yaay xam de yaay xool daal man en général nag damay def afficher le nombre d'abonnés à ma chaîne ma ma ma def non ne pas afficher le nombre d'abonnés waaw moom laay def mais bu la neexee yow mën nga def mën nañu ko abonné yaay yaay xool daal lu la neex bu dee nag da nga changé def ne pas abonné da ngay cliquer enregistré bu dee nag changé woo fi dara fii da ngay bàyyi noonu soxlawul soxlawul <clears throat> léegi ñu ñëw fii ci analytics fii moom pour après chaîne bi information euh, vidéo yi nga am ñaata nit ñoo fi dugg ñaata nit ñoo ko cliquer gis nga comme chaîne bu bees la gis nga moo tax joxuma benn information mu ne ma na ngay affiché rapport bi temps réel mais du affiché dara parce que seen bu bees tàq la amagul amagul dara lu am solo ah moo tax du affiché dara voilà ñu nga depuis 48 heures gis nga presque amul information yi demee noonu léegi bu ñëw di deuxième vidéo bi nag ci ñu analytique bi si lay ñëw li yëpp benn par benn ñu wax leen lu muy jëriñ benn mu nekk lu muy jëriñ mais li gën sax mooy ñu bàyyi ba kanaal bi am ay vidéo <clears throat> ba commencé dox wala après ma dem ci sama beneen canal boo am na pour ça comme ça ngeen mën a xam parce que bu amul vidéo information yu bëri du ñëw parce que amul ay recherche amul dara te lii analytics la maanaam source de yi ñu ñëw ci sa séance vidéo fan lañu jóge ci Facebook lañ jóge ñëw wala ci biir YouTube lañ doon xool gis vidéo bi cliquer ko wala ci benn site internet lañ ko gisee appareil téléphone lañ utiliser wala ordinateur ay góor lañu wala ay jigéen Sénégal lañ nekk wala extérieur loolu yëpp dina la ko fi defal ñiy cliquer say vidéo di nga am ci ñoom information yu précise lay dimbali sooy defete ay vidéo nga sóoraale loolu pour xam zero yi nan ko koy defee boo xamee fan nga ëppee ay trafic yu fay jóge voilà loolu mooy daal résumé bi léegi après da ngay ñëw ñu xa fay fii sax il faut ñu expliquer leen ko tam tableau de bord bi voilà tableau de bord fii mun nga ajouter vignette say vidéo après bu bu affaire bi commencé dox vidéo yi say vidéo dina la fa cinq vidéo yi conseil commentaires information basique daal yoo am da nga ko mën am fii fii boo newee gestionnaire mooy vidéo yi nga télécharge yëpp après fi lay nekk playlist mooy vidéo yoo xam ñoo bokk nga dajale leen di leen dajale par group loolu moo tudd playlist booy créer playlist fii ngay ñëw nga créer utal ko tur def ko. après beneen playlist tudd euh, sport la nuit beneen playlist euh, tudd euh, repas recommandé wala yu demee noonu daal comme yaa ngi yëngu ci affaire sport exemple bi ma jëloon sànq. pour nan la nit ki def ba garder ba am forme te du def du naan ay comprimé du jël ay kii ak yooyu moom la gars yi di naan pour perte poids rapidement euh, nga xool daal vidéo yoo xam ñoo bokk catégorie nga leen di dajale fenn loolu mooy tudd playlist mais bu ñuy excès ba dugal ci dugal vidéo yi parce que pour nga ko defar tamit foog nga amay vidéo yoo dugal ba pare soo ko ko indil mën nañ ko créer itam yu bëri bàyyi fii après vidéo boo dugal rek daat koy dugal ci benn xool bu mu concerné nga ko fa mais loolu après jarul ñuy yàkkamti comme loolu yëpp dinañ si ñëw incha allah léegi nga ñëw fii nga ñëw ma chaîne voilà léegi boo cliquer ci ma chaîne ji nga fii la lay ubbil mën nga changer photo profit bi léegi mën nga changer sa photo daan en tête bi mais dinañ leen wan nan lañ parce que balaa ñu koy changer foo ñu defar si benn boo te dañ leen bëgg wan nan ngeen koy defaree ak si seen ordinateur pour mën ko changer wala nan ngeen koy defaree ci seen téléphone pour pour soog koo mën a changer moo tax mënu changer kuñ ko léegi parce que avant ñu koy changer dañ leen wan li ngeen fiy def nu ngeen koy defaree ba pare euh, mooy illustration bi pour la chaîne benn image bu mag nga fiy def def ci say personnaliser ko daal maanaam comme exemple xaaral joxe benn exemple tamit wan leen canal boo xam ni par exemple ñëwaat si ba léegi si TFM voilà gis nga TFM mi ngi nii bii lañ fi def ñoom def fii yi nga émission yeewu leen def ñu koy def def euh, wareef information après def seen lien cliquable si euh, YouTube bi commenté YouTube bi ak euh, Facebook ak Twitter dañ leen wan nu ñu koy defee nu ngay di defaree image si ku nekk ak image bi nga fiy def ci nga boo ñëwee ci boo ñëwee peut-être rajo Futurs Médias gis nga bu seen bos bi ñu fi def gis nga. lii daal ne ku nekk nag yaa xool sa goût yow lan nga fi bëgg a def en tout cas image nga fi war image nga si bëgg a def yow yaa ko xam voilà ñu nga boo ñëwee fii kanalu GCB gis nga moom fenn image bu basé rek bu ñu jël nii rek dugal fi la mu nekk genre euh, table mixeur mixeur mixage lay niróol nii gisoo mu dafa def lu simple rek voilà boo ñëwee par exemple Dakar People gis nga moom benn photo bi moom yaakaar naa sax mi ngi ci YouTube bi koo jël par défaut hmm, gis nga am na yoo xam sax dañuy jël image rek dugal fi am ñoo xam ne dañ koy personnaliser comme par exemple nga nga ñu ngi ko personnaliser def Pikini kase jeex na def nga def seen design bu rafet pare ci mu jeex waaw lii intro la après nañ la woon nu ngeen koy defaree tamit wala incha allah léegi fii boo ñëwee automatiquement. fii yaa ngi fàttaliku description bi ñu la war na nga koy def fii tam même chose danga après mais xaaral ñëw ci fii ngay njëkk a ñëw fii moom boo fi ñëw toujours li nga fi war njëkk changé mu nekk priorité mooy fii parce que xaar avant ñu koy sànq woon la gis nga fii boo xoolee Pablo kese kese moo fi nekk leneen nekku fi te dafa am lu fi war a nekk nag loolu nga fii indi fii ngay ñëw boo ñëwee fii mu defal la garde privé mes vidéos euh, que j'aime garde privé mes abonnements garde privé léegi mu ñëw fii personnaliser la présentation de la chaine nga def waaw dama ko bëgg a personnaliser nga cliquer fii nga def enregistrer gis nga voilà fii laa bëggoon ñëw at gis nga euh, lu mu indil mooy comme yi mooy xooloon fee sànq ci version bu kii bu bu euh, ñuul bi di nga kay vidéo play this chaîne à propos léegi fii lii laa soxla woon te boo demee ci beneen beneen côté version bi du génn quoi mais boo ñëwee fii ci paramètre bi lay génn gis nga euh, fii nga def ajouter une section maanaam mise vidéo mise en ligne moo nekk fii section soo defee donc comme noo koy tuddee lan nga si bëgg a def ak lan nga bëgg mu def ko nga def ok euh, sélectionner video populaire yi nga bëgg muy ñëw euh, horizontal wala vertical horizontal nga def ok gis nga vidéo après vidéo bu ma dugal dañuy rangaloo fii vidéo pop yi gën a ëpp ni ñu ko xool rangaloo fii noonu ngay ajouté accès vidéo yi nga xam da nga koo aimé yoo xam ni euh, dañoo duré maam option yu bëri la la yaa sélectionné fii di def bari par benn waaw mais bu ñu ci tolloo lu ñu def rek après dañ leen war ngeen def ko parce que pour kii moom euh, vie générale la ñuy def tey rek moo tax quoi léegi boo ñëwee à propos fii gis nga da ngay am possibilité def fi ab den description description bi nga defoon fële ci ci suufu vidéo foofu moom ngay def mu nekk ci biir chaîne bi bii lay nekk du nekk ci vidéo yi mooy concerné ku soxla sa information bu ñuy à xam yow yaay kan chaîne bi lu ko tax a jug comme dañ leen ko waxoon fee nga bindoon fee ngay copier automatiquement coller ko fii ak lien yi ci nekkoon yëpp nga copier ko coller ko fii voilà mooy fi ñu leen wanoon sànq ci vidéo bi bu fekkee da nga sa xel la ci da nga arriéraat ba tolloog foofu li la woon moom koy def moom ngay defee fii tam teg teg. yow yaay kan lan ngay def pour lan la site bi pour ñu bëgg a perte poids la te ba koo jaare ci sport euh, nii lañuy sport yi lañ war a def nii lañ koy defee façon daal yi nga war a sol boo koy def heure yi nga ko war a def euh, yu demee noonu da ngay lekk ba pare avant da ngay defe soor ba pare soo ko lekk guddi gi bëccëg bi tout ça lan moo ci gën daal pour nit ki perte pois comme yooyu information bi nga def ko fi li tax pour ko liir xam chaine bi lan moo ko tax a jug réalité voilà léegi fii tam nga def sélectionné pays bi bu dee fii comme nga sélectionné euh, Sénégal ana mu sax Sénégal Sénégal euh, mi ngi nii voilà non mooy def Sao Paulo dañoo taxaw taxaloo ma ko mi ngi nii voilà Sao Tomé laa def sax euh, gis nga fii information yi boo defee nag fii description yi ba pare bul fàtte def ok sinon doo enregistré dara voilà boo changé fii tam dëkk bi nga def mu def mise à jour fii soo bëggee bu lokk lien par exemple sa sa page Facebook danga ko cee bëgg a yokk da ngay dem bu ubbee sa Facebook sa Facebook ba pare lii ubbi ci kaw nga copier ko baar bi euh, lien bi nga def nga ñëw fii ajouter lien cinq lien nga am droit ajouter nga def ajouter nga def fii Facebook Facebook lien bi nga def fii coller soo ko kolee nii xam nga bi YouTube la YouTube laa copier mais Facebook ngay war a par exemple nga copier Facebook parce que damay laaj code parce que sécurité bi ma defoon sama téléphone pour mën a connecté parce que dama dama sama cookie yi quoi léegi nga ñëw nga tàppe ko fii boo ko tàppee léegi nga yokkaat bu dee Twitter nga yokkaat def def fii Twitter bind def lien Twitter bi fee YouTube nga def tout YouTube yokku lien YouTube 5 daal nga fi mën a def soo paree nga def OK gis nga boo defee OK gis nga automatiquement indi na la logo Facebook ak Facebook bi gis nga soo ko bëggee changé fii ngay ñëw soo defee nii fekk defoon nga yi xam nga defuma fi dara gis nga. soo bëggee changer fii soo bëggee supprimer fii ngay cliquer poubelle bi mu supprimer wu soo bëggee changer nag bu dee Facebook daa am loo juum bi nga koy bind nga ñëw fii nga changer par exemple F bi def ko majuscule fii bu dee lien bi daa juum tam nga changer ko ba pare nga defaat ok gis nga mu def ko mise à jour voilà automatique léegi daal loolu mooy li nga xamante ni woon mooy nekk euh, paramétrage yi nga xamante ni mënut a ñàkk waaw léegi liñ ci war a remplir nag ni ñu koy remplir leen lu si nekk nag li nga fa a dugal ci description bi dinañ leen indil exemple euh, indil leen tamit euh, exemple dañ leen ko indil waaw ñëw fii paramètre paramètre paramètre waaw moon leen euh, fii waaw paramètre par défaut fii nii yi nga fa remplir yëpp dañ ko def en temps réel ngeen koy gis liñ fa war a def ak tag yi nan ngeen koy yute def ko fi paramètre description mooy mooy fi ñu jógee sànq loolu ngeen fay defar description tag yëpp incha allah vidéo bi ba suba ah, incha allah di vidéo bi nag démb la waroon dugg mais démb dama amoon ay contretemps si ay problème technique ci enregistrement bi dama enregistré ba pare son bi amoon problème quoi moo tax ma mujj ma ko dugal ma defaat beneen bi mais comme ñaari vidéo a a jegante parce que paramétrage la pour mu féeti côté suba incha allah deuxième vidéo bi dinañ ko dinañ ko defar incha allah balaa ñuy tëdd bu soobee yàlla dina dugg ci internet bi incha allah rabbi waaw bii nag vidéo une bi la woon deuxième vidéo bi mu ko suba lay ñëw bu ko defee boo leen nekk benn benn kii benn cours. ok ñu leen di gërëm di leen wax rek comme ñu leen ko yàgg a waxee euh, euh, suivre leen formation bi liñ siy def yi teg teg ngeen jël sant comme vidéo la am nga option boo xamul dara nga pause ko foofu def ba pare soo comprendre nga arrière dégluwaat. su dee déglu nga mais xool nga may comprendre tamit nga envoyé ñu commentaire wala message privé wax ñu nga envoyé ñu message wax ñu comprendre tel et tel point comme ça ñu expliqué la ko mu gën leer wala bu fekkee ñu bëri dañ ko laaj doo ñu def ci benn vidéo boo xam ne dañ koy gën a jël suñu temps ko détaillé pour mu gën a leer waaw lu ci mën di am daal yaa ngi foofu sous vidéo bi loolu lay jëriñ euh, bu fekkee gis nga ne vidéo bi am na solo bu amul lu ci mën di doon commentaire yi pour loolu la quoi kon euh, fii la ñuy yemale vidéo bi jërëjëf. gars yi nag comme ni ngeen ko gisee comme léegi jóge nañ ci paramétrage yi j'espère que lépp leer na bu ci amee loo xamante ni comprendre leen ko mun ngeen ko bind ci commentaire yi ñu gën ko leeral bu ci amee loo xam ne da ngeen yaakaar tam duñ ko sote mun ngeen ko bind ci commentaire yi comme ça ñu ñëwaat ci def ci vidéo tam expliquer leen ko. Euh, te tam li ñu leen doon wax mooy li ñu def ñu app ci paramétrage yéen tam ngeen appliqué ko bu leen seetaan rek yéen ci mais lu ngeen seetaan day fekkee defagu leen ko woon da koy def loolu mooy tax affaire bi am efficacité. ñu leen di gërëm nag ci seetaan bi ngeen ñu doon seetaan di leen ñaan tam fekkee vidéo bi jàpp ngeen ne am na solo ngeen partagé ko ci réseaux sociaux yi ñeneen mën si jot mën si jëriñu mun ngeen tamit dem ci suuf am na bouton like bi ngeen def euh, bu neex leen dem ngeen ba si bouton like bi te bu leen fàtte bu dee nag yow da nga yaa ngi ñëw chaîne te abonné woo wala ñëwoon nga ci mais abonné ko bul fàtte cliquer ci bouton bi nekk ci suuf vidéo ñu bind ci s'abonner moom mooy tax nga mën a nekk ab membre ci chaîne bi vidéo yi ñuy dugal yëpp nga koy am boo cliquer s'abonner dina am benn euh, cloche notification bu apparaître bu gris après nga cliquer ci cloche bi mooy tax après vidéo bi ñu ko dugalee rek yow soxlatul ngay def recherche vidéo bu ñu téléversé rek automatiquement YouTube daf la koy daf la koy xamal daf la koy yëgal ci notification sa téléphone nga mën ko seetaan kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ñoo ngi wan ak yéen ci seen canal Galsen Tube ci seen formation comment gagner de xaalis ci YouTube ñun yéen ba ngeen commencé gagner xaalis incha allah ci YouTube cliquer ci s'abonner ak bouton notification bi ngir mën a jot vidéo yu bees yi